asalaamaaleykum maa ngi tudd madame Bigué Ba Mbodj euh, di présidente nationale euh, kuréel gi ëmb euh, sage-femme Sénégal yëpp. waaw bis bi li ko li ko sabab mbir yu xaw a bare la parce que li ko li ko jiite moom mooy dañu lëkkaloo ak association des sages-femmes dafa lëkkaloo ak laboratoire yu ñuy waxee Sanofi. ñi nga xam ne ñoom dañuy yëngatu ci mbirum garab yi nga xamee ni mooy jàppale fajkat yi pour que yenn feebar yi ñu mën ko faj. donc euh, depuis ñetti at nekk ak ñoom li ñuy tuddee collaboration partenariat di wër euh, antenne nu association des sages-femmes yi nekk ci biir gox goxaatu Sénégal yëpp dem ànd ak ñoom euh, jàppale leen yokk leen xam-xam ci mbirum paj Euh, yokk leen également ñu wan leen ni leen euh, bu feebar yi amee am nañu ay jumtukaay yu nga xamee ni euh, laboratoire fi teg na ko fi nga xamee ni sachant mi ci seen xam-xam ak seen xarala dinañ mën a faj nit ñi ba nga xamee ni feebar yi mën bu fi jógewul it dina dinañ mën a wér Euh, beneen affaire bi ñu ci bi ci tegaat tamit moom mooy euh, association des sages-femmes at mu nekk euh, dafay ànd ak kuréelu association des sages-femmes yi nekk ci àdduna bi yëpp di féete li ñuy wax journée internationale de la sage maanaam journée bi nga xam ne àdduna wërngal képp dañ koo jagleel sage-femme yi liggéeyub sage donc ren jii thème bi ñu ci jël maanaam li ñu war a jóg di ko waxtaane mooy dañu ni sage yi ñooy défenseur de droits des femmes donc àq ak yelleefu jigéen ñi ñun ren jii dañ ciy gën a yëngatu te li ci li ci jiitu moom mooy dañuy fexe ba jigéen bu nekk foo mënti nekk ci Sénégal boo feebaree nga mën a faju mais faju bi day doon faju bu mucc ayib faju bu nga xamee ni li nga soxla ci faju dinañ la ko defal ci ay euh, sage-femme yoo xam ne xam nañ seen liggéey tàggat nañ leen dolliwaat nañ leen xam-xam mais également ay garab yu jàppandi yoo xamee ni dinañ ci mën a góor góor ba nga xam ne suñ ko joxee jigéen ñi dinañ mën a dinañ mën a faju donc ñu ni droit des femmes maanaam àq ak yelleefu jigéen te ku ni ni jigéen dañu ni nga jur doom te jur doom moom mooy li euh, nga xamee ni rôle jigéen la jigéen yëpp nangu ko jigéen yëpp di ko wut mais moo indi ndeete ndey ak doom te ñun li nu li nu li nu ëmb suñu ëmb moom mooy fexe ba benn jigéen dootu loru ci diggante ëmb wasin ba si ñeent fukki guddi yi donc pour nag li nga xam lépp loo xam ne xalaat nañu ni war na mën a indi gàllankoor ci biir ëmb ci wasin ci loolu dañ ciy taxaw di ci di ci di ci di ci way sunu waar mais en plus de cela aussi bëgg nañu jigéen bu nekk dañuy wax ni nga am droit wu sañ-sañu li nga yaakaar ci boo duggee ci néegu sëy muy tout tànk nga mën ko mën a am donc tey euh, euh, tax mu am solo torop li tax ñu toog fi parce que dañuy waxtaane feebar yi nga xamee ni jigéen daf ko mën a am ci biir néegu sëyam te buñ ci teelulee jóg mën na indi li ñuy wax stérilité maanaam kooku dootul mën a jur doom te loolu dafay metti parce que boo boobaa jigéen bi ni muy taxawee ci biir këram day daal di am ay jafe-jafe ni muy taxawee ci biir société bi parce que ku ne xam na ni société sénégalaise ku jur jigéen bu amul doom moom lu nekk di nga ko dégg dinañ la takkal wujj li nii bañ a dégg dinañ la xas dinañ la wax lu nekk donc comme ñun dañu jóg pour euh, euh, jàppale jigéen ñi donc dañu ànd ak nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ni jàppale looloo tax nag ñu dem ci région yëpp démb ñu ngi woon Louga tey ñu ngi Ndar pour mën a dajo ak yi nga xam ne ñu ci région bi waxtaan ak ñoom ci feebar boobu wax leen naka lay mel naka lañ koy xamé ci jigen wax leen également surtout yan garab lan leen war a utiliser ba nga xamé ni euh, dinañ mën a mais ëllëg si biir tamit du leen indi galankor ci seen biir jur donc lolo taxone nak ñu ñu ñu ñëw fii donc li dafa bok ci plan bu ñu def depuis toute l'année dañuy wër toutes les antennes de région donc dañuy def tournée nationale donc en tant que président association des sages-femmes dañuy dem ci gox-goxaat rencontrer sages-femmes mais gën leen ñaax également parce que coow li bëri na peut-être ci mbirum sage mais ku nekk il faut ñu xam lan la sage-femme di dund yan métit yan jafe-jafe la ñu nekk ci gox-goxaan yi ñu nekk donc ci yooyu la ñuy daal pour fexe que loolu mën a sotti mais également que état du Sénégal jàppale xale yi dem recruter leen parce que loolu aussi dafa bokk si dañ ne dañ ne ni droit des femmes te sages-femmes yi ay femmes lañu. Mm-hmm. donc balaa ngay lijjanti feneen dangay dëkk lijjanti sa biir kër ba pare ndax ñun dañoo am ay xale yu sages yu nekk ci ay àll yoo xam ne ndox amu fa courant amu fa kër gu nu dëkk amu fa xaalis bu ko yoree sax war a jënd lekk du gis lekk bu nuy bu nuy jënd donc ñooñu aussi dañoo bëgg si également euh, waxaale ci ñoom pour ñu jàppale leen ñu recruter leen ndax seen àq ak yelleef ñu mën ko sàmm.

ñu capacité la maanaam fexe ba liggéey bi ngay liggéey nga gëj si xarañ loolu dafa am solo mais aussi gisante bi daje bi nga xam ne dinañ mën a waxtaan ci li nga xam ne moo jëm si suñu liggéey xool suñu ay gàllankoo xool li nga xam ne moo am problème ñu jéem ko euh, gérer loolu aussi am na solo waaye li gën a kii baax euh, euh, am solo ci bis bi mooy daje bi nga xam ne dinañ ko def ak sage-femme yi jóge Richard Toll ak Dagana nga xam ne tey bii bis bi ñun ñoo koy bokk sottantey xalaat waxtaan mais aussi gën a yokk suñu xam-xam si li jëm ci li nga xam ne moom la présidente wax léegi mooy jigéen ñi si benn seen biir sëy ñu mën a nekk ci jàmm am ëmb bu tegu ci yoon suñu amee gàllankoor aussi sage-femme yi mën ci taxaw sàmm seen àq yelleef ba nga xam ne eh, jigéen ñi dana ëmb si jàmm imbi si jàmm donc tey jii li may gën a yokk mooy sage-femme rek ñu yokk seen taxawaay euh, góorgóorlu ba nga xam ne àq ak yelleefu jigéen ñëpp ñu taxaw si euh, wér-gu-yaram bi nga xam ne moom la ñu féete ñu bay si sunu waar ba nga xam ne euh, yaay day nekk si jàmm doom nekk si jàmm kër gi yëpp nekk si jàmm.